non non parce que ñii mën nañoo tase ak benn élève sans indil ko problème bu dul jeex genre yi baaxuñu ci dëkk bi. jaay bàyyi ko eh bu ñu benn élève sans mën nañu koo dugal ci boppam. ndecc média bi weeje ko ñu jël numéro dugal ko ci kaso bi te du mujj fenn genre yi dañ leen a war a téye ci réew mi. bon lañ. c'est xool jigéen la xam nga luy problème bi mille cinq cent du problème damaa mënul comprendre nga jël ma taxi ma lay yóbbu nga dem ba yàgg ni damay tux man la oto bi kenn ci tux nga ne kon damay wàcc du ma la fay man loolu rek laa mënul comprendre mais du problème bu som man xaalis bi du problème bi ci topp kii tey man na tasee ko innocent imposé ko lii ñu am problème innocent bi du xam ne muy réagir mu dugal ko ci kaso bi dem yoonam te fekk moo ko tooñ moo tax genre yi dañoo njaral rek ay profité ay non man la Aïda Patra man Aïda Patra li jëm ci lu mu loolu la quoi kii da ngeen koo war ay repas ce n'est rien moom la. man saa di ma mën a comprendre quoi. jigéen la ko lijjanti yow dama dàkk sa wërsëg parce que sëñ Bamba. loolu souvent boo jëndee si kaw booy nekk si kaw bi. gars yi wóor ni fii yëpp amul xam nañ ko ba ci lan dañ day day balaame nit ñi. mais jigéen bul fexe. jigéen boo jotee moom kii benn ñaareel bi mooy siiw du jaamu borom ba mu siiwee rek la am connaissance yoo xamante ne ñoo xamante ni bul comprendre ko. waaw. yow xëy na sa niveau fu mu yegg ak sa niveau fu muy fréquenté. bokkul comme muy toog si rajo ba di wax yow doo ko fekkee. doo ko fekkee. ña muy waxal doo ko wax. waxal ah.

ba yëpp naa la ba pare